bu leen di ŋaat ku ngeen gis doon te xaj ba sëgëm dana mbaw ci ruuram toolu yaasin li lee tax maan ma faf def tey ba tuuba te mbaake di màkka bambayi mooma yaasin aaya soodaan bind binduma ko dama ko dama ko dama ko seet bu baax a baax ci nattoo di kër këraanul awliyaa yi la nekk foofu noonu Cheikh Moussa Ka daf fay wax nattu yu yi daj ñoom ñëpp ba doog ñëw ci Serigne tax dafa xaw a méngoo mu naan gaa yi yonent mu ne mu ne mu ne est-ce que doo boobu ku weddi laajal laajal xayrul anbiyaay mës nañ ko génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj te naan ko day njabaraan fanaan na ci xuntu fanaan na ci ay doj ànd ak Ababakar an lu nekk nuy daj dogoon ak demam gi wolof nasaraanu te kon bilaahi ñépp dem ni raani ngir doomu soxna yaa ngi kaanu di dagi seefi uri faf nasaraanu ñoom ñoo jaxasoo kàngam yi ak nasaraani ñii defi xaadir ñi di ànd naar yi yi doomi soxna daal di sampi daara te nonga yaag jigéen ñamel ni saara siree mu ànd ak saara yendu caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo sëriñ si ànd ak buur yi faf di daani ñale di tux di foon ñalay doxaani ñale di wàññuloo ñalay bandaañi ñale di tariyaaxi ñalay wañaani jërëjëfe borom Touba. mu nekk lu am solo mu nekk loo xamante ne nii boo koy déglu rek yow da ngay fier ci doon gi nga doon jullit déjà mais da ngay fier ci ki nga xamante ne ni moom moo jël xaalisam mm. ni bu ñii di def lee man lii laay def mm-hmm. tagg Cheikh Ahmadou Bamba tagg yonent bi mm-hmm. mais yaakaar nañu itamit doo ko fa yemale ndax mm-hmm. képp kuy magu diine doon taxawal li lislaam rek pare nga pour way ci moom waaw noonu la demee nag noonu la demee boo déggee boo gisee sax ñuy gër ñuy jël xasida Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yi Serigne Touba li mu bind ci yonent bi maanaam amul amul ku ko bind wax dëgg yàlla dafa dundam yëpp ci yonent bi la ko bind waaw wax dëgg yàlla amul wax dëgg yàlla looloo tax balaa balaa sa bët di di tegu feneen day fekk nga xanaa nga jeexal li nekk sa kanam wax dëgg yàlla ñu naan bay sa weewu tànk mhm. waaw wax sa weewu tànk nag bu bëree loo war a bay defe naa waaw pour nga jàll feneen dina xaw a kii mais xëy na tamit incha allah bi suñu borom mën na ko def tamit wax dëgg yàlla waaw mais ñun moom wax dëgg yàlla ci ci lii daal lañ fas yéene yar sax suñuy njaboot ci leen fas yéene lépp luñ bë lu ñu am daal ci lii lañ ko bëgg a amee incha allah rabbi waaw. lépp lu luñu suñu borom war a may ci wërsëg yàlla nañu ko may ci zikrullah bi wax dëgg yàlla. allahumma amin lan mooy définir Papa Kara ci lu gàtt rek. waaw Papa Kara sama sama waajur bu góor moo ma tuddee waajuram bu góor ah. mu tuddee El Hadj Ibrahima Mbaye Diop ñu may woowee papa mhm. moom mu may woowee papa papa mooy may papam noonu la may woowee parce que papam la ma tuddee mhm. léegi nag Kara gi nag moom dafa ñëw nii rek man xaw ma sax nu mu fa demee. ma accepté li nga doon taalibe Cheikh Modou Kara moom moo tax wala. waaw loolu la nag ndax dañ ko bëgg lool sax wax dëgg yàlla te tamit dañu fier tamit ci tuur bi ñu ñu koy woowee ndax Kara bonheur la hmm. waaw 24 Kara waaw bi nga am ci hmm. kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké lan moo ko def. cër <laughs> waaw parce produit bu mujj bi ci séance d'écoute bi mhm. ki nga xamante ne ci moom la bokk muy mhm. doomam mhm. ñëw na fekkee ko daal di koy teewee waaw kooku mooy suñu jëwriñ ci Cheikh Ahmadou Karam Mbacke noonu maanaam moo wàccee boppam ni nga koy gisee noonu mooy suñu sang bu wér ci moom lañ yaakaar ci moom lañ jàppandi wax dëgg yàlla fekk dafa dafa fekk moo wàccee boppam loolu te tamit Cheikh la ñu booleel ci liggéeyu mélodie bi ci zikrullah bi moom moo tax mu gisu gis nga ko moom muy muy bokk ak ay jaamaan yenn kii mooy révolution pacifique boobu ma lay wax ci musique ci musique bu ñuy waajal màggal dañ koy gis wax dëgg yàlla noonu la demee nag mais day nduru nduru lu zaahir te doon baatin dëgg waaw te boo gisee xale yëpp dañ koy woyantoo ah wax dëgg yàlla noon la loolu rek lañ ci bëgg loolu kese loolu kese moo nekkoon bébét bi noonu la demee en tant que xale boo xamante ne ni bu jógee dina bari ay ndaw yu jug topp ci ginaaw mhm. te ñu ci bari dañuy faral di utiliser moo naan Baye ci tënk rek. Mm-hmm. ndaxte ab Baye Fall moom yaakaar naa ne jagleb suñu borom la. dëgg la mais lan mooy définir Baye Fall dëgg. waaw man ci li ma jàpp loolu moom xam naa. Mm-hmm. dina dina xaw a diis ci man tuuti. Mm-hmm. parce que bu ma déggee suñu suñu baay yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko aljana yi firdawsi. radiyallahu taala anhu Baye Ndiaga. li muy wax ne mooy Baye Fall lépp lépp wax dëgg yàlla mënuma ko lim fii. wax dëgg yàlla doon na daal loo xam ne lu kéemtaane la. waaw Baye Fall moom c'est autre kon nañ ko bàyyi di foowee daal man Baye Fall laa Baye Fall laa ndax am na am na jëf yoo xamante ne boo nekkee Baye Fall waroo ko jëf sax wax dëgg yàlla waaw Baye daal dafa c'est autre daal wax dëgg yàlla. Mhm. bu mag ñi di téye seen ay doom du lu xamante mhm. ne du lu mhm. xamante ne ay caaxaan la. ni ko gaa yi jàppee. maanaam Baye Fall lu lu lu lu riche la. lu riche la lu sacré la. lu sacré la koo xamante ne Baye ak suuf ñooyam daanaka. suuf. ci ci lañ lay dugal. waaw wax dëgg kon woyof ci rek. waaw noonu la demee. <laughs> bu leen di ŋaat ku ngeen gis doon te xaj ba sa gëm dana mbaw ci ruuram toolu yaasin li tax maan ma faf def tey ba Tuuba te Mbaake di Makka bambayi moom yaasin aya soodaan natoo di kërkëra nu lawli yaayi ku weddi laajal laajal xayrul anbiyaayi mës nañ ko génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj te naan ko day njabaraan fanaan na ci xuntu fanaan na ci ay doj ànd ak Ababakar lu nekk nuy daj dogoon ak demam gi wolof nasaraanu te kon bilaahi ñépp dem ni raani ngir booba doomu soxna yaa ngi kaanu ci daggi seefi uri faf nasaraanu ñoom ñoo jaxasoo kàngam yi ak nasaraan yi ñii defi xaadir ñi di ànd ak yi yi doomi soxna daal di sampi daara te nonga yaak jigéen ñamel ni saara siree mu ànd saara yendu caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo sëriñ si ànd ak buur yi faf di daani ñale di tux di foon ñaley doxaani ñale di wàññuloo ñaley bandaañi ñale di tariyaaxi ñaley wañaani jërëjëfe borom Touba mbokk yi nekk na lu am am solo parce que bu ñu koy muy génnee li nga xamante ni moom moo nekk ci dënnam dañu sentir que ni xale la ndax bu yuuxoo fon xale ak fon mag gars yi nee nañ du benn bu ñu yuuxoo rek da koy sentir moo de la fin bi nga xamante ne ni di nga ko tàggatoo ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy sa ay nit yi la bëgg parce que nekk nga koo xamante ne ni ñu wax ko ak ñu bañ ko wax fi mu toll nii moom ci aimé ndax nit ñi bëgg nañu la bëgg nañu la ba noppi sa premier produit yi ba tey ñu ngi lay bàyyi xel ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñoom waaw lu njëkk di ziar di di gërëm sama gars yi ñoom Matar mbay ñoom Prince waaw ak Bili ah xaadima ñu gën nga xam ci Bili moom day jàpp si bagage yi di waa di ziar suñu maire monsieur Ndiagne Diop mm, la la moom la député maire Ndiagne Diop maa ngi koy ziar maire Bambilor di ko ziar bu wér di ziar di ziar Assane Diousé Diafara Sakho ah, Baba Diawara waaw Baba Diawara ñoom ñëpp dañuy jàpp si affaire yi di ziar ay Sam Gueye ah Waly Ndaw Baye Yoro gaa yëpp Papa njaay gaa yëpp kulim ay Mamar gaa yëpp daal kulim da juum waagaan seen tamit maa ngi koy ziar bu wér-wér da ci jàpp bu baax borom Belel Travel. moom maa ngi koy ziar bu wér a wér di ko jox wàcc waayam di ziar képp kuy jàppale Papa Kara ku lim da ngay juum xam nga rek xel moom dafa motul di ziar groupe soppe Papa Kara bu wér di ziar Pape Gueye mii tamit sama chauffeur mi ma indi ah sama la jënd kër fii laa juddoo Medina di ziar sama mbokk lébu yëpp tamit waaw surtout maam Ndiaga Ndiir Diop yëpp maa ngi leen di ziar bu wér di leen jox seen wàccuwaay waaw Medina yow lébu nga Pire Diop laa sant Serigne Dakar man bii nii nii Abdoulaye Makhtar Diop sama papa la sama cousin wu papa la. lébu sama yaay tukulër la. ngeen <laughs> yi noonu la demee c'était un plaisir de partager xale boo xamante ne nii ñu ngi bay waaram. xale boo toogul yaa fuus wala sax muy wër di sonalaate ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen joxaat di daje ba beneen yoon incha allahu rabbi ak keneen koo xamante ne nii. mi ngi bégalaate lu ñëw waxtaan ak moom mbokk yi jaa ngeen jëf